assalamualaikum mbokku téléspectateurs yi sétane ci Asfiyahi TV ak provision tay ñu ñëw ak yeen sen beneen numéro wu découverte tay ñu wara a ñëw fii ci Mbao découvrir bergerie Al ci sunu grand Cheikh aidara Géré nga xamni mom mi ngi bay waram ci élevage bi bay war bu am solo bu ñëpp rafetlu tay ñu wara a ñëw fii ci bergerie bi xol ci yi fi nek xol xari aussi waxtaanee malam bu mag bobu daanu fay diaspora ñu ko ci mastaw bu baax kon ñu dugg xol bergerie Al incha allah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. jaga ñu ziar bu baax waay. delloo ziar ñu lay jox sa waati waay. dal leen ak jàmm. ça va ça va bien. alhamdulilah naka coono. ça va nii rek ñu ngi nii di daw rek bismillah ñu ngi lay ziar. delloo ziar. vraiment di la remercier ci dalal bi ñu dalal tey. ñoo ko bokk ñoo ko bokk. ñu lay bàyyi nga présenté wu ñuy seetaan. waaw waaw tey ci découverte. waaw man day tur bi Cheikh Aidara la euh, bergerie Al quraishi bi nek mbaw je pense que euh, xëy ñu bari dégg nañ ko sax déjà waaw on existe depuis à peu près deux ans hein donc euh, di yëngatu ci walu élevage la sama présentation nag présentation, na balaa yegg wax ne j'ai 50 ans et que je suis consultant dans le domaine du marketing et de la communication Machallah accessoirement éleveur de moutons on va dire. <laughs> Euh, très passionné. déjà à la base donc nous parce que <laughs> marketing. Vous avez marketing avec euh, euh, passionné. Mhm. boobaa di nga ci investir ci côté image ci côté yëpp daa mel ni gis nañ loolu fii tey dëgg la donc ñu ngi la ci encouragé bu baax di la ci félicité merci beaucoup ndax tamit lu rafet la merci beaucoup waaw bergerie bi yaa ngi doon wax léegi waaw mais balaa nga koy sanc tey fan nga jaar ci élevage ak waaw amour boobu fu mu jógee euh, amour bi en réalité wax dëgg yàlla fi mu jógee ci ñu bari fa la jógee mooy nekk ci kër nekk xale mhm. mu am xar euh, xëy na du doon raas mu nekk xar bu nekk ci kër gi boo xam ne dañ koy takk ci ginnaaw rek. di ko xon ko xontu tabaski jotee ñu ñu am nu ñu def ak moom. Ah. dem wutiwaat beneen. en kër yu bëri noonu la tàmbalee. Euh, à la base xaru tabaski moo taxoon jóg suñu maam yeeg suñu papa yi. Euh, ba nga xam ne yow da ngay mujjee démarqué wu ak ñi ci des ñi ne ñeneen ñi dëkk ci kër gi. Mhm. ñu seetlu ne ne yow bu joxe ngooñ jotee yaa ci gën sawar. bu sang jotee bu sang jotee yaa ci gën sawar. Ah. Euh, àdduna di dox ba nga am amour boobu di ko suuxat say parents jàppale la ci di la bàyyi la xel bàyyi la sa yow ngay gérer xar yi mm-hmm. noonu la demee bon ñu commencé di yafal nag yafal xaru tabaski mm-hmm. euh, di commencé nag di gis leneen lu dul lu wuuteeg li ñu yoroon mm-hmm. di ko bàyyi xel man je dois dire que bi may commencé di dem fois rek léegi ëpp na quinze ans commencé di top yenn éleveurs yi di dem si ñoom di leen seet di xool ni ñuy doxee di xool évolution wu xar yi ah. euh, jusqu'au jour où je suis allé à la place de l'obélisque ça a été le déclenchement on va dire mhm. dem demaat foire c'était pas ma première foire hein. mais adam ma adam la woon waaw ah. bi ma demee fekk ñu indi fa booy séeréer mu am sept mois ah. mu yéem ma lool ci âge boobu waaw ci laa commencé di ko topp parce que je pense que foire boobu dafa jeex rek je suis allé voir Abou dem xol bergeréem commencé di ko di fa ñëw presque chaque dimanche sans qu'il me connaisse mais dama doon ñëw rek di di observer di observer di duggaat ci ma di dugg ci masse bi rek mhm. di xol évolution bu boy serré di xol yeen xar lay tëb et cetera et cetera bon je pense que biñi ñuy dugg ci laadum deug deug deug ak légui bon suñu kay calculer mu ngi xëy na na ay 7 8 ans macha allah ku ñuy wax libaas kan bu dëkk Tëngéej moom mu njëkk jox xar benn couple. Euh, loolu je pense que def na ay huit huit ans minimum huit ans. macha allah ensuite nag ci la affaire yi commencé ñu dugg ak génn le projet Al Khoureychi en soi nag. Mhm. en lui-même. mën nañ doxaale. waaw xoolaale xar yi. mën nañ ne. Mhm. def na trois ans. macha allah trois ans daal la ñu toog réfléchir ñu ne ah ñun ñii ñun ñii de. Mhm. est-ce que duñu faf rek nekk éleveur. macha allah te créer benn bergerie xool ci yan anam lañ ko mën a créer. concentré wu ci concentré wu ci waxtaan ci ak Babacar Diallo à l'époque il y a trois ans. ñu toog ñu ne ah est-ce que du ñu vraiment dugg ci defarum bergerie. waaw ci laa commencé di li ma ci gën a sawar nag honnêtement. waaw nga am benn maal boo xam ne bu ma gisee. Mhm. Euh, dafa def si man lu rëy muy bâtonnier. ma faan ko lool ko lol mhm. fek babakar était assez proche de cette bergerie là mhm. ci a commencé développer dal philosophie ou am bergerie bergerie Al Khoureychi allah commencé à commencer ko kër ga clé mhm. di recruter du fa dugal di ñett

ak bi ngay accueillir eh. diaspora tey est-ce que attente bi nga ci doon am tey ñëw na. waaw xam nga généralement dañuy faral di wax xar xaar. Mhm. Euh, et que ku pressé. Mhm. du càmm. Mhm. ñun bi ñuy dugg ci diaspora. xam nañu bu baax li ñu bëggoon du lu ñu laam-laame sax li ñu bëggoon xam nañ ko bu baax. Euh, certaines personnes pourraient ne pas comprendre wala pourraient avoir mal interprété wala wala sax ñu am seen benn jugement au d'accord mais ñun li ñu doon wut ci diaspora xam nañ ko te yàlla dimbali nañu ba am nañ ko macha parce que dañu recruter woon ay femelles yu jógee ay ci ay horizons yu bokkul mhm. ñu jàpp ne mâle bi nga xamné mom mo ñu mëna défal assise assise mhm. euh, ci base femelle bu solide bu ñu mëna a diaspora lay doon ok euh,

mën nga faussé. waaw parce que buñ leen mënaguñ leen jugé léegi. déedéet faut attendre. parce que taw bi. Mhm. taw bi neuf mois la am. Euh. taaw bi fii ci kër gi. neuf mois la am. donc tëboogul sax faf. macha allah femelle la kon femelle la waaw. kon le plus gros du morceau. Mhm. Euh, des filles de diaspora ñi ngi doog a judd. donc am nañ fi cinq mbote yoo xam ne amaguñu weer. donc tey pour xam valeur réelle.

foog ñu xaar ba ñu am deux ans ñu doog a xam li ñu mën dëgg dëgg xam dëgg la donc malheureusement c'est vrai que moom wat daanu na mais gàcce ngaalaama macha allah vraiment gàcce ngaalaama euh, yor nañ fi ay doomam yu jigéen yu xaw a takku macha allah yor nañ fi ay doomam yu góor aussi mhm. mais daal li mën a wax daal mooy satisfaire nañu ca lañ ko doyee woon à cent pour cent taxaw na ko taxawee na ko macha allah léegi nag Euh, daanu bi c'est vrai que c'est toujours trop tôt ah. on est bien clair. mais mom déjà avant muy daanu. Mhm. am na si ou wala six femelles yoo xam ne tëbu nañu. Mhm. ci keneen ku dul moom. d'accord te mu ngi fi donc ça veut dire que d'une certaine manière relève bi tambali won nañ ko ba pare. préparé woon ngeen ko. tambali won nañ ko sax. macha allah macha allah allah est-ce que après yéen yéen a ngi prévoir. amaat beneen maal boo leen recruter wala tey yi fi juddoo rek ngeen di bàyyi ñu màgg continuer production bi. non am na yu fi juddoo. Mhm. am na yu ñu recruter woon déjà. donc li ñu liggéeyee. tëgg yàlla. defe naa mu ngi fi. ah macha allah waaw mu ngi fi. benn du doomu du gaynde mi ngi fi dañ ko jëndoon. Uh-huh. benn doomu Omoro mi ngi fële. Mhm. Euh, te yaayam nekk doomu ndéwénal ak UNESCO. moom tam dañ ko jëndoon mbote. Mhm. am na benn jeune mâle bu ñu la woon fii sànq xabaab. yaayam di doomu bâtonnier. Mhm. moom muy doomu renaissance. ok ba ñuy jënd yaayam dafa fekkoon mu tëbu ci renaissance. kon da ko tëb lañu tëb boobu tax ñu sawar ci dugg. daanaka dañuy faral sax di wax ne croisement bi lañ jënd. Ah. au lieu de <laughs> donc mu ngi fi. Uh-huh. Euh, am na benn doomu teraanga bu nekk ci kaw. waaw boo xam ne aussi dafa bokk ci maal yi ñu war a liggéeyee. Uh-huh. je pense que. boo ci boolee doomu bâtonnier bi nekk côté bële. Mhm. Euh, te yaayam di doomu bu sobaali ak Salim. je pense qu'on a suffisamment de matière pour bien travailler. donc ñu découvrir box yi. waaw tey mu mel ni aussi seen box yi vous avez innové aussi. parce que box yi mel ni yaatuwaay bi bariwul loo koy gis. Mhm. même place mbote yi daa mel ni luy boo xoolee nga xam ni c'est un vraiment bien réfléchi. par rapport ak à l'environnement. Mhm. yëpp donc fii yan femelle nga fi am fii. waaw fii de euh, pour euh, wax rek capitaine bi xaw ma lu tax nga njëkk ma laaj sax. kii euh. moom laa tuddee capitaine. capitaine doomu biddew bu fàq la. Mhm. ñu ko jëlee woon ci Lamine jaañ bokk na ci les premières recrues ici. am na fi ñaari doom yu jigéen. am fi mhm. ay seex yu góor yu mu jur ak diaspora yaa yaa un mois. waaw mooy mois non ñoo tëdd nii. ñoo tëdd nii ci wetam. moom mooy Ndeye moo nekk nii. moo tudd nii waaw Ndeye Anna la capitaine. waaw mooy capitaine bi waaw. <laughs> macha allah alors keneen ku ma la fi mën a wan kii di waaj jóg nii bu noir bi. waaw doomu Forman la. ah doomu Forman c'est une des dernières recrues waaw. macha euh, mhm. moo nekk nii euh, kii doomu Raan la. doomu Grand Raan. doomu Grand la. Mhm. ci Lamine Diagne la jógee aussi. moom tam jur na fi benn mbote bi jigéen ak diaspora. macha kii mooy Mariem doomu bâtonnier la. doomu ci Abu laa ko jëlee woon. ok am na fi ñaari doomu jigéen aussi. ñaar yëpp ak diaspora. Mhm. këlee doomu booy galo yàlla. moo nekk ne au fond. Mhm. moom euh, am na fi aussi doom yu góor ak ak diaspora. ok moom tam ñu ngi ko recruté woon Tëngéej quoi. yooyu daal grosso ñoo nekk fii quoi waaw. par rapport au recrues est-ce que les éleveurs ngi est-ce que mm. comme vous le entre guillemets taxukaay yàgg trop mais est-ce que tu facilitation une facilitation entre éleveurs est-ce que tu Derrière fait est-ce que gënul jafe Non. Ah. Euh, enfin hein? je veux dire tu sais quand tu demandes un sujet les gens ils n'ont pas tendance ils ont tendance à vendre le sujet en fonction du potentiel que toi tu as. De l'acheteur. De l'acheteur. On, on, le sait, hein. Euh, c'est ce qu'on appelle la tête du client, quoi. Il y a peut-être pour... Waouh, C'est vrai que euh, faut pas nous am langue de bois quoi. d'une certaine manière c'est xar al cher que prix normal mais bon. est-ce que du sac pour ñun tamit mais bon mu ngi noonu daal c'est ça la donne daal. loolu waaw parce que aussi tamit loolu la ñu naan booy liggéey. Mhm. tey parce que li ngay def noonu mën naa ni man jarul xeeb. Mhm. ndax après ëllëg la roue peut-être pour pourra tourner. bien sûr elle tourne toujours. c'est ça toujours donc ñuy lancé message éleveurs yi que amul ay bergerie Al Khouraychi amul bergerie alhamdu sama xarit Siré Diakité wala grand Aboukan mhm. ñooñu mën nañ wax ci ñoom. que ñuy xoolaat vraiment échanger am digënté éleveur yi c'est important que ñuy bayyi xel ëlëk té xamni ni boule bi mëna tourner ci ñëpp. Mhm. donc euh, limay lancer éleveur yi chaque jour moy gëna a bokk ndey ak bay c'est ça gëna a yéenante. ndax kenn xamul fu yalla di def tay lu koy juddoo. lu yéen ñëpp bien sûr ça c'est clair. voilà d'accord ñu continuer suñu suñu visite bergerie Arfouresh. ok. tay bi moy jeune mâle bi moy doomu duugaynde bi. moy doomu duugaynde bi waaw. ok mom mi la combien ba D'après, il a 15 mois. Hein? 15 mois. 15 mois moom nu mu tudd ko Simba la tudd. Simba ok Simba bon. ah moom gaynde la doomu gaynde moom bu tuddee Simba. wàcc na wàcc na <laughs> le roi lion. le roi lion waay waay waay. moy Simba. est-ce que mom amagum na fi production wala. non tëb na xar may wacce wacce gol waaw ñu fi fi wacce guñu ba ok mom mom kenn gisagul doom quoi. ok d'accord melni mel ni allah mi ngi mi ngi jël yonam quoi. ah jël na yonam kay. jël na yonam jël na yonam xar bi mu dendal na la ci ginaaw doomu Nestor la. ok moom mooy bébé Linguère. Nestor euh, xam nañ ko xeyna moy do xéru frère ak euh, ak ñom ñom ñoom aha Mon nekkoon Arena Ladoum. d'accord. Euh, Kële mooy Union doomu almaami la. d'accord. Euh, moo nekk na la si ginnaaw. Ah, waaw moom vraiment <laughs> macha mais qu'est-ce que vous attendez par exemple ci ci moom ci Simba. waaw bah, attente ngeen am ak. vision wu élevage. bon Simba xam nga ñun ñëpp nangu nañ benn mbir. mooy mhm. xar day njool day gudd day rafet. Mhm. day rëy mhm. moom. Euh, rëy bi yaakaar nañ ko ci moom hmm. parce que comme doomu duugaynde la mais yaayam sëtu gelawaar la mu ñëw am benn yax bu fort bu nekk ci moom boo xam ne xëy na mën naa bañ a nekk ci doomu duugaynde yëpp waaw dëgg waaw ah, parce que dafa am ndey daal te waaw je pense que gelawaar bi dal, am na lu mu ci mos waaw léegi nag njool moom xam naa ne gëm nañ ne dina njool hmm, hmm, rafet moom kenn waxatu ko

نقول سوري واي بقى جينا في المدينة نقول لنا ما شاء الله دونك مو امنا يمي تب امنا ينا مرمي مرمي دي تب كوا grosso modo. Euh, entre temps sax ñu ngi ñu ngi masawu waale suñu xarit Siré Diakité. waaw ci gaynde bi wàcc keroog. dëgg la donc mu nekk loo xam ne élevage bi yëpp nakarul nañ ko. mu nekk benn métit boo xam ne ça affecté tout le monde. dëgg la Siré ñu ko ci masawu di ko ñaanal yàlla mu am leneen lu ko gën fuuf. sama waay la Siré incha allah mu nekk nit ku baax ah, vraiment ku baax la moom ñëpp ko wax. waaw nit ku baax donc yàlla yàlla barkeel ko yàlla defal ko jàmm barkeel élevage am allah continuer yeneen box yi fii daa mel ni ay tëng ñoo fi nekk. waaw fii ay tëng ñoo fi nekk. benn benn moo fi femelle bu mag fële la. bon box bi box su dégraissé la en ñoom ñëpp dañu tëbu xaw a engraissé. waaw foog ñu wàññi seen. foog ñu wàññi seen poids waaw. Mhm. parce que anour mooy maal bi ñu fi njëkkoon yor. waaw moo jur kaat yële. d'accord kii ki kii ak ñoom ñëpp moo leen jur. mais femelle bu mag la quoi. waaw moo leen bu mag la ñii ñoom ñoom ñëpp ay tëng la ñu ngi doog a tëbu. mais dañu am masse corporelle boo xam ne waa masse bu xaw a yaa rëy quoi donc il faut ñu wàññi leen. Anour mooy def lii quoi en fait. ah moom day am dayo quoi moom moom femelle yi mu jur yëpp dañu rëy quoi. donc il faut ñu wàññi leen. parce que suñ grand abukan mi ñu ko doon jàngal. waaw ne ñu xar femelle bu tëwee. Mhm. bu teego nekk ci premier mois yi noonu warul lekk am alimentation ba c'est ça ñoom ñoom trois premiers mois yëpp duñu lekk repas. macha allah ngooñ rek ngooñ rek. foog ñu dégraisser leen te ñu ngi ci jéem ba sonn de mais taxul. ñu wàññeeku mu ngi noonu. <laughs> wàññeeku bu ñu de. <laughs> yàlla bëri na sutura. <laughs> ñu ngi nuyuwaale sunu gars yi ñu fekk fii grand yi ñu ngi leen di ziar. grand Babacar. grand Babacar moom laa lay boole léegi sax non waaw grand Babacar kay dama lay booleek moom léegi sax. waaw moom mooy présenté sujet yi ci des. waaw incha allah. xam naa bu ñuy génne sujet yi di ko détaillé. moom il faut moom. mu ñëw moom mu ñëw waaw. kii ban jeune mal la. waaw kii mooy sant yàlla uh-huh. waaw mooy sant yàlla moom doomu Omaro la uh-huh. Omaro doomu bâtonnier la boo xam ne yaayam doomu Saalum la ak Boussa Bali euh, waaw léegi nag moom uh-huh. yaayam euh, ndëwanal lañ teg ci UNESCO mu jur femelle ñu teg ko ci Omaro moom mu jur macha waaw moom bi ñu koy jënd mi ngi nekk mbote. ñu xam rek ne croisement yooyu noonu. waaw am nañ ci yaakaar ne mën na liggéey liggéey bu rëy fii. si macha allah boo xoolee xam ne jeune la sax. waaw war waragul am deux ans. non non non treize mois la am. treize mois <laughs> xoolal treize mu euh, ngi doog am treize mois waaw. waaw vraiment. mooy sant yàlla waaw. <laughs> vraiment c' est l' avenir quoi. waaw waaw Omaro rakku kenn bëggul. kenn bëggul ok. Ah, boo xool day bàyyi. waaw. rakku Omaro rakku euh, préfet lañ lañ teg ci Fatou mhm. Ndiaye. macha allah Omaro judd waaw euh, euh, ak Celia. bu noir ba lay ngay ni gis au fond moy doomu doomu makhou la moy seria waaw doomu makhou sey la mais production makhou bari na fi de ma sha Allah euh makhou fi amna fi fi yor ni wala sans bu joge ci mom non bi mo fi domam bon amna fi set aussi parce que ki journa ak diaspora am ci kaw euh mais c'est vrai que wa wa mok batonier ba ban ah. production bobu amna fi quoi ah, quand même wa euh bi borom tek bu noir ba lay ne waaw doomu mozar la xëcël ko selia ci mooy Célia waaw doomu Mozart la mi ngi jógee Arena Ladoum. Mhm. Euh, mom mom mom xam xaw ma ndax xam nga domu Reicha Abdan ak euh, ak ben domu magistrat bu ñuy wax euh, Malika. Ah. Mhm. waaw ñoo ko ñoo ko ñoom mom ko jur. moom lañ teg ci Mozart moom mu judd. macha allah mu mel ni kon vraiment. waaw ah. bergerie bi am na am na ay pénégré yu leer. waaw yëkkatil ko doomu Bagdad boobu. waaw ban la cuulul bi. waaw doomu Bagdad la waaw dañ moom. ah doomu Bagdad la. waaw moom it tëng la mais dañ koy dégraisser. parce que si quand même il a pris elle a pris du poids. waaw elle a pris beaucoup de poids te tëboogul. tëboogul ah, waaw ah. xale la quoi donc il faut que ñu dégraisser ko tuuti. pour mu mën a tëbu quoi. waaw moom grand Lamine Konaté moo ñu ko joxoon. moo ñu ko joxoon waaw. fekk mu nekk mbote quoi. macha allah. Mm. fii tamit daa mel ni am na ay naissance waaw waaw fii moom mooy maternité bi quoi fii moom la gars di wasine quoi ok waaw bu sori rek dañ lay indi fii waaw pour nga wàccee xëcc ko janaar macha allah macha allah bore bi kuy papam kii lengo door ba la tëdd mooy papam doomu bâtonnier bi nekk ci waaw mooy papam waaw macha allah non vraiment mi wane ne vraiment nag yéen am ngeen base de femelle <laughs> waaw ñu ngi ciy góorgóorlu de kii mooy jaañnaar uh-huh. xama ma ndax xam nga xar boobu ñuy wax arafat mooy seexam xam naa ko mooy seexu arafat macha donc euh, moom moo fi mujjee wàcce ak ak lengo ak lengo femelle bële waaw moom nag mag la quoi mooy mooy c'est la vieille marmite quoi <laughs> ah macha allah jël ko Yacine souvent vieille marmite yi moom la ñuy wax ne ñaan ñoo dàq togg ñoo dàq togg moom loolu gars wax na waaw parce que mbotay bo xolé rek di nga gis ni vraiment. macha allah quoi. Picasso la ak ñebe capitaine ki ma doon wax. capitaine waaw ñebe bi. mo jur ki ak Picasso. macha allah mo jur ki ak Picasso. am na deux portées deuxième portée am la aussi il y a pas longtemps. donc euh, am na benn femelle euh, benn mbote ñebe. waaw mu ngi ñebe ci ginnaaw moo ko jur quoi ak ak ak jas. ak ah, moom mu ngi nii ah, waaw moom jël na ñebe jas. waaw ah, <laughs> jël na ñebe bi waaw. macha allah jël mel ni doom Picasso yi aussi temps yi tamit ñi ngi en vogue quoi. ah ñoom moom kay saay. macha allah <laughs> ñooñu moom. baarakallah. voilà. doy nañu waar. kii mooy lengo. doomu batuñe ah. yaayam di doomu euh, Boussa Bali ak euh, ak Saalum Saalum ah, moom mooy frère ci euh, Sitor ñoo bokk ndey ak baay moom moo topp ci Sitor en fait kii mooy yoon wi mhm. doomu batonier la ah. moom lañ jëlee woon ci Matar Niang moo jur doomu renaissance bi ma la doon expliqué sànq mom lañ jëndoon ci Grand Matar mi am fekk mu tëb woon ci Renaissance donc moo fi wàcce doom jooju waaw moom tëbuwaat na ci euh, ci diaspora moom daanu waaw kii mooy koddu waaw kii moom kër ga la juddoo fële à Derklé euh, yaayam doomu Gelawaar la mhm. euh, moom doomu Picasso la d'accord oh. waaw doomu Picasso la waaw

war ko mën defal suñu bopp. obligé waaw képp kuy éleveur war nga mën piqûre war nga mën jang ni ñuy défé ñuy defee injection. Ah, waaw lépp war nañ ko mën jang pour baña xaar tay vétérinaire bi amana bala muy ñëw sa kër mu voilà. c'est fondamental il faut nga am ay notions d'accord euh fonk xar ak bëgg xar ci mhm. notion yoy daf ci bok ah, il faut nga am ay notions yo xamné mhm. moy tax ba les premiers soins tu peux tu peux les gérer. voilà bala vétérinaire bi ñëw non nonobstant le fait que di nga am vétérinaire attitré. Mhm boo xam ne mooy suivre xar yi xam xar yi xam leen bu baax. ñun en l'occurrence ici on travaille ak ak Boy. Mhm. docteur Boy depuis le début. te ñu ngi ci am satisfaction wax dëgg yàlla. macha allah je le salue au passage. macha allah. Mm. mel ni aussi am ngeen espace accueil ak espace prière. waaw waaw daa mel ni oh. loolu tamit wane na ni. fii moom këru taalibe la. ah waaw. c'est-à-dire ñun day ay julit lañ. yàlla dafa dogal ñu judd nekk julit waaw donc euh, damay jàpp rek ne. waaw. bu ñu doonee jullit it faw ñu defar barab boo xam ne beneen jullit bu ñëwee fekk suñu bu ko waxtu wi dabee mu mën a am fu mu jullee te du am benn gàllankoor waaye dem ci kër wala ci bërëb bu ay nit di tase mhm. waxtu julli jot ngay xool ndax laajte si jaada wóor naa naam wóorul dëgg la pour bañ a nit ñi. waaw yàlla nañ ci yàlla musal. yàlla nañ ci yàlla musal waaw donc boo ñëwee nga gis ne def nañ fi barab boo xam ne lii ko tax a jóg. Mhm. di sawar ci dem fële ci jàppukaay bi jàpp ñëw julli joxe sa waxtu. dëgg la dafa am solo. ñun éleveur dañuy yàgg di dem ci ay barab di fa yàgg lool. donc euh, di dajale. julli yi yendu kay mën nañ waaw donc ku fi ñëw moom di nga julli. incha allah incha allah alxureysi tur bi lan lay sonné wu carrément. waaw alxureysi de comme ni ma ko faral di expliquer. Mhm. ñun yàlla dafa dogal euh, ñu nekk jullit Euh, bokk ci xeetu Seydina Muhammad bokk ci famille Seydina Muhammad te xam nañu ne suñu borom da ko yàgg taggee ci jikko mhm. pour éviter les les conflits de de de moo tax mu ko doon taggee jikko mais terewul ne moom am na ci giir gu mu bokk ci xeet gu mu bokk euh, giir googu mu bokk mooy giir Bani Xuraysh ñu xàmmee leen ràññee leen ci bëgg liggéey fonk liggéey waaye bëgg jur fonk jur it. ndaxte ñoom ñëpp ci sàmm lañ. absolument ñoo daan rallier Cham ak Yémen. Mhm. ci ci ay attelage wu mala lañ ko daan teg. fonk jur lool. Mhm. te di ko dundee. fonk liggéey lool. ñun nag ñu identifié wu ci loolu. moo tax ñu tudd alxuraysi macha allah. yàlla yàlla barkeel ya allah. loolu moom suñu yonent bi sallallahu alayhi wa ci loolu la nekkoon. dëgg la di wax ñu ne la yenent bi. Mhm. commerce la la daan def. dëgg la ak yeri bàyyi. ak sàmm sàmm ah, donc loolu moom vraiment mu nekk loo xam ne lu noble la. dëgg la ndax ñëpp ñun ñëpp bu ñu sañoon roy ci moom. waaw dëgg la loolu rek nit ñi xamuñu milieu wala ah. doole yi élevage. ah lu doy waar. yàlla ñu yàlla motali. amiin yaa rabbal ci kaw xool yeneen sujet yi fa nekk. amiin yaa rabbal allah macha allah mooy li ñu doon wax tey xam nga ku ñëw gis xar. ñu yégal la premier. <laughs> vraiment maa ngi maa ngi nuyu sama papa Jibril Wade. ndeysaan demee këram foofu tamit mhm. mu mel ni vraiment lii lu rafet la te maanaam lu lu lu yaakaaru la quoi. Mhm. ci ci ci teral bi ngay teral xar yi nii. dëgg la sant yàlla. incha allah yóbbul yóbbu yégal leen ci kaw. sant yàlla ci ci bu ñu nekk. Mhm. macha allah tey boo ñu doon présenté tey sujet yi nekk fii ci kaw. waaw kii de. Mhm. Euh, <laughs> xam nga maal bu ñuy wax xéwal. xéwal xam naa ko. yaayu xewal Jasmine. waaw moo jur kii ak teranga. moom ak teranga ñoo jur maal bi kii mooy géey teranga. waaw li ma neex ci doomu teranga bi mooy mhm. dafa am ndey. dafa am ndey te dafa kuye. kuy la kuy. génétiquement parlant. dafa voilà waaw dafa riche daal. kii mooy Gueye Teranga. macha allah am nañ yaakaar ne dinañ liggéey ak moom daal. waaw dinañu liggéey ak moom bu baax macha allah. femelle bi ci ginnaawam. mooy Adeo. Adeo nag boo ko déggee da lay jox turu association bi nekk Wakaam. d'accord ñoom ñoo ko tuddee woon xar bi. waaw. ndax wakaam la jóge wakaam la jóge nekk fierté wu wakaam di doomu jogoy. ah doomu jogoy la. doomu jogoy la boo xam ne. yaayam euh, doomu procureur la boo xam doomu bu lañ ci procureur femelle ñu ki allah parce que jël na daye aussi tamit allah wax dëgg day a tëbu a trois jours ah, ah doog a doog a tëbu dafa feral bu yàggul am benn doomam bu mu am ak suuf ok allah kële doomu doomu sibéeru bi o gis sànq bu noir bu noir boobu non ci ngeen gis ci mbaar bu mujj bi ñu euh, visité noonu moo jur kii ak grand shérif grand shérif benn doomu bâtonnier la bu nekkoon ci grand Mamoussa waaw moom moo ñu moom moo ñu mayoon tëb foofu ñu yóbbu fa yaasin mu tëbu mu tëbu mu jur fa ay seex kii benn seex bi la quoi macha allah robu bi rafet na waaw macha allah ñu xool yeneen box yi. ayca añal yi. waaw. mel am ngeen base añal aussi. est-ce que yéen a ngi commencé génne production yi wala comment ça se passe. honnêtement comme ni ma la ko waxee sànq. Mhm. je pense que on est dans une dynamique de. de, de production mm -hmm. et que pour l'instant. waaw xëy na am na ay doomu diaspora yu góor yu génn y en a eu quatre ou 5 yoo xam ne joxe nañ leen mais c'est vrai que Domi pour l'instant. dal. Uh-huh, daal. vraiment joxé. D'accord. <laughs> pour l'instant, uh-huh. on est dans une phase de. de, production de production. Mm-hmm. dans diaspora la ñu dans une des bi ensuite qui bini Zeynu bi nekk ci Badou Dieng. ok Zeynu moom xaw ma ko quoi. Zeynu doomu madame Cissé la ak Jazaka. Jazaka ak madame Cissé ñoo jur Zeynu. moo nekk si Grand Badou Dieng. ok dañu jël benn doomu Picasso. waaw bu jigéen. teg ko ci Zeynu mu jur femelle bi. macha allah Picasso boobu. waaw moo jur kii ak Zeynu. ensuite. mu ne léegi sangu saalom bi wax dëgg yàlla saf na sàpp. waaw non saf na sàpp obligatoirement. <laughs> Uh-huh. kii doomu lengo la. lengo bi suuf lengo moo jur kii ak benn doomu Xuraysin. macha allah donc doomu Zeynu bi ak doomu lengo bi. Uh-huh. ak doomu ak xaru Chérif Bale ñoo fi doomu ñoo fi nekkul doomu diaspora. waaw ñu si des ñoom ay doomu diaspora. yow damay ragal yóbbaale ko ndax damaa ñëw rek mu topp <laughs> waaw. ndeysaan macha allah. te uh-huh. yooyu fee box bële ñu ngi fa am box bi bébé lingeer bi nga gis ci suuf doomu Nestor. moo jur femelle bi. moo jur kii mooy moo jur tëng bi waaw. Mhm. Euh, xale la ko kii doomu bâtonnier la. Ah, bi. femelle borom collier bu orange doomu bâtonnier la. kii doomu magistrat la borom teg. maron bi bu maron bi doomu magistrat la waaw. ñu ko jëlee woon ci puy puy bu nekk wakaam moo ñu ko joxoon. macha allah xële doomu diaspora la ak doomu boy galoya bi ci suuf. bi ci suuf ñoo jur kii. mook diaspora macha allah waaw mel ni kon lii moo nekkoon business bi mais tey par rapport ak euh, par rapport ak foire yi mhm. par rapport ak foire yi tey yan attente ngeen ci am yéen BTV Al Khoureychi aussi une exposition comment ça se passe parce que nous sommes aussi période tabaski bi. vous mhm. def vraiment exposition bu am solo. avons mhm. exposé vraiment exposition pour doy après après en a ngi donne jaayaale aussi. waaw tey nooy jàngatee milieu professionnellement parlant avec la bi aussi ak business bi par rapport à tabaski nous en réalité on avait fait un appel au niveau de la tabaski nous waxtaan ak nit ñi woo leen ci concept. Mhm.

xam nañ ne ñun Sénégal ci déficit bu énorme lañ toll. Mhm. liggéeyaguñ ci dara. tey boo demee Seras pour jënd xar boo ndawaloo sa kër ça coûte deux fois plus cher. Mhm. qu'il y a six mois. dëgg la la raison est très simple ñu bëri xamuñu ko Sénégal. Mhm. c'est que xar xar gëj dina jóge Mali dugg. dugg loolu kese tax na ba prix doublé na. ça veut dire quoi ça veut dire que ñun on a un énorme déficit à combler. si ñu ngi nekk ci xar yi di yar mais avons un déficit bourré. déficit bourré, déjà il y a 2000 têtes qui entrent au Sénégal toutes les semaines qui nous viennent de la sous-région. Les chiffres vous l'air là, 2000 têtes par semaine sachant qu'il y a 8 tonnes de de de viande l'Amérique Amérique latine di dugg si suñu de en termes de conserve ci ay boîtes, ci ay carton quoi les ci ay frigorifique mooy ñuy congelé là. ça veut dire que ñun suñu déficit c'est quand même énorme. si rëy na trop. Euh, beneen bi stop mooy bés bu ñu tëjee frontières yi bu tabaski jotee mu ñaaw. dëgg la bu ñu frontières yi ne xar du jógee ci bitim réew dugg suñu. Sénégal gii bu tabaski jotee mu ñaaw. parce que chaque chaque fois dañuy xaar sous région bi dugal pour xar mën a bari. alors ñun nag en tant que éleveur à l' échelle individuelle mënuñu lu dul décrier loolu. Mhm. ba pare. teg ay jéego ne ñu ngi ci jéem a dox. mais ñun <laughs> à l'échelle nationale. Mhm. on représenter on du tout. dëgg la yéen tey ma ma doon leen sax 2 pour cent. voilà léegi nag li ñu mën mooy décrier ko wax ko ba pare dox ci jéego. ñun tabaski loolu la ñu doon dañu leen di wax ne dugal nañ ay yeneen rasu xar. Mhm. yoo xam ne boo leen métissé ak suñu xar yi dañuy teel a atteindre benn poids boo xam ne mun nañ ko consommer. mën nañ ko consommer dëgg la. moo tax ñu indi fi ay dóor peur. Mhm. am na fi. waaw ah, dóor peur yi gisoon naa ko yi. C'est liñ ci jublu won moy xar ba nga produire de la viande. lañ ci on voulait lancer un message ñëpp déggandoko ni ñi ci ñi ko dégg pas ñu ci fekk si. Mhm. fekk ñu si liggéey bi ak concept bi kuñ ci fekk si ñi ngi ci kuñ ci fekk si wuñ ngi ci. ñun daal faire nañ leen ngi ci. donc bi au delà de l'aspect commercial. Mhm. C'est euh, gisee ñu tuddee woon ko foire tabaski bañ ko tuddee opération parce que du woon opération opération L'opération nga dem jëndi cent mille teg ci cinquante mille mhm. jaayaat mais boo indee benn concept tu dépenses deux fois plus que li la xar en termes de communication c'est parce que dafa am un message boobu la jàllale mhm. et je pense que le message a été entendu ziar vraiment di rafetlu dalal bi ñu dalal mën nañ ni tay émission bi ginaaw yalla mom mo ci japp tay ñu ngi lay nuyu di la bay nga présenter wu tay ci wa waaw alaykum jaga ma mhm. lay nuyu di la dalal fi ci bergerie Al khouraysi mhm. di nuyu téléspectateur Asfia yépp mhm. di len wax euh, bienvenue ci bergerie bi macha allah tey kii mooy kan boñ ko doon présenter tay loy wax ki kii jaga ki mom euh ki moy euh, khabab

bu soobee yàlla bu ko yàlla may wér gudd fan. Mhm. waaw c' est un mâle boo xamante ne mën na def lu bëri ci élevage bi. macha allah de par sa composition li ko composé déjà. ak déjà li mu wane vraiment dal na xel trop trop trop di. ngeen def si ñaan daal. waaw quand même ci ci sept mois moom. Mhm. mu am dayo bi macha allah. Mhm. mën naa ne <laughs> yombul. waaw waaw bii ah, moom. yombul yombul c'est un phénomène. suñu grand bi aussi ñu ngi koy nuyu moom. waaw ki mooy Chérif xam nga ko ci élevage bi. <laughs> muy Chérif nekk daje nañ Gàmbi. ah waaw daje nañ Gàmbi eh. daje nañ Gàmbi vraiment. Mhm. ñu ngi lay la ziar bu baax. maa ngi leen chat di bëggee ah. ah. bu baax. Ah. macha allah mooy lool rek di nga. Eh. dañ lay bëgg doo xam noo leen def. <laughs> voilà fan fii maa ngi nuyu kii nag. Eh. Euh, ci touche du bois. waaw. Ah. xar mii. ma laal bat. kii renaissance moo ko jur jur par Aldibo. Uh-huh. borom TP 151 bi. Uh-huh. baayam def record au garo 120 uh-huh. yaayam. ki jur yaayam buy batañee buy batañee buy xar bu ñu am yaakaar macha allah macha allah di xar boo xam ne grand foog koy càmbar nank foo xoolee xar bi saxu yenn fa mu saxoo waaw ba ca garaba fa mu nekk nga xool tepeewu xar bi parce que croisement bi lañ jënd dëgg la attention xoolal xar bi léegi nag xar xar dafa doy waar xoolal geen bi fa mu mhm. saxoo fa mu sax ak nu mu duggee lii rek mhm. doole la dëgg la macha allah macha allah kii dañ ko bàyyi xel élevage la ci élevage bàyyi xel su guddee fan ci réew mi. allah moo tax ma naan laal leen bant. <laughs> ah yow bant bi ngay laal. <laughs> allah est-ce que mën nañu xool beneen beneen jeune mâle bu fi nekk. ah alxurés yi alxurés yi tey alxurés yi du jeex. Ah. mais Habab ibnu Arab Arab waaw. Ah. Ah. Habab ñu dem ñu dem nii ci box bi. pour am lu muy teg. Habab ibnu Babacar kii mooy kan. Ah, Ndiaga kii mooy Latifa. Latifa dom la ci Jogoy waaw. ah doomu Jogay la. waa ku xam Jogay mooy doomu Mahfous bi ak Aïcha. ak Aïcha waaw yaayam nag. moo mooy champion ki jëloon bi passé. waaw Kaya. waaw doom ci roi Bachir. waa moom moom suñu xarit bi suñu voisin Seli li. waaw Seli grand Seli. waaw Seli ah, sa këram farewul fii. waaw en face moom moom moo ñu ko joxoon bi mu nekkee Mbote. macha allah moom moo taawloo. Euh, añel bi moom ak diaspora. d'accord macha allah kon mu ngi soog am porté nii. waaw jëkkoon na am porté mais porté bi eggul daf doomi dañu daanu. macha bii mooy deuxième porté. macha allah. bopp rëy na lool diis. am ko tàggat am na am na autorité aussi yow nga gudd na macha allah mhm. mooy bàyyam. joxe bàyyam mais kaayam bu gudd. Mhm. léegi nag day baax aussi élevage des fois ñuy wane fi ñu wane yenn sujets yi mu ci expliquer day tax ñu xamul xam. mooy lu ko dalee fii jëm fee. Mhm. bopp diis trop. ak ay ay ay la ëmb na nag avorté. bi presque mënuñu wax mooy deuxième potem rek. mais ci xar bu toll nii ci deuxième potem dafa raar dafa raar très rarement. dafa raar si càmm ji. Uh-huh. waaw mun ñu loolu di si boole. macha allah macha allah ci boole. yéen aussi ñu leen jaajëfal ah. leen uh-huh. jaajëfal bu baax si liggéey bi ngeen def liggéey bu rafet bi. macha allah macha allah di waral liggéey bi. am na solo trop. jërëjëf mais foo bëggee dëgg dëgg. Ah. xar bi maturation yi garaaw de. toujours ah. yi ngay xool. <laughs> waaw grand Babacar kii mooy ban sujet Euh, njaga kii nag mooy Biba uh-huh. mais xar bi nag dafa am ñaari tur quoi uh-huh. parce que dafa am ku ko tuddee Biba am keneen ku ko tuddee Maram Gise ah oui ñaari gars daal ñooy xëccoo ku nekk jabaram la ko tuddee <laughs> waaw kenn xamul kenn xamul ban la ci jël ban la ci jël d'accord waaw kii moom doomu roi Salomon la roi ah Salomon bi nekk euh, mbuur ci suñu xarit Latir Cissé di sët ci magistrat yaayam aussi di doomu Madagascar uh-huh. nekk aussi sët sëtu magistrat ak sa booy séeréer kii moom Latir Cissé moo ñu ko baaxee woon mm-hmm. vraiment di añal bu exceptionnel boo xamante ne vraiment élevage bi yëpp xam nañ ko te demagul fenn. dëgg la macha allah mi ngi ci onzième mois am. Mhm. donc euh, ñu ngi ko jëloon ba mu nekkee xale. te macha allah li mu wane ci ay prédisposition ci wàllu mensuration jéggi na dayo trop. waaw di ci am yaakaar bu baax a baax. macha allah mu mel ni Siba fekk si nañu. waaw kii moom. mooy ki ñu leen présenté sànq. Mhm. di doomu du gaynde waaw doomu du gaynde kii mooy Simba. waaw. di sët ci Saalum Saalum. di sët ci Gelawaar. dëgg kii moom comme ni ko Cheikh waxee. dafa am lu raar. parce que kii dañu boole al ay sëtu algoor la ñaari yoon. ci côté yaayam ak ci côté papaam. Mhm. donc moo tax mu waral ossature bi. Mhm. ak auteur bi ak auteur bi mu am. ak prédisposition bu mu am ci ci wàllum dayo ak euh, esthétique di xar boo xamante ne mun na liggéey lu lu bare ci élevage bi waaw waaw na ko gars yi na ko gars yi bàyyi xel bu baax dëgg la macha xam ne moom vraiment ndaanaan la quoi la mais grand Chérif loo ñuy wax ci Simba waaw li wax ci Simba ko nangu macha <laughs> mel ni deretu gaynde bi mu ci moom de. <laughs> waaw waaw waaw xale bi kii rek def ne xar mi. waaw waay wala xar. macha allah. macha allah xool xar <laughs> ndax maal bu ñàkk fay rek dina ñëw rek donc lii moo nekkoon suñu émission découverte. moo amoon vraiment mbégte ñëw bergerie Al Khoureychi ci ñu eh. présenté yu am solo vraiment ñu koy rafetlu di gërëm suñu grand Babacar suñu grand Serigne ak suñu grand Cheikh Aïdara ci accueil bi ak explication yu leer yi aussi wane nañu alxurés ñi ngi toll ci benn liggéey bu dynamique aussi am benn vision bu leer ci élevage am fu ñu jëm di am ay perspectives yu am solo donc ñu leen jox di dajee ci beneen émission incha allah.